असलकुम man la Ousmane Ba Goto ma dellu si waat pour ñu yàggali waxtaan d'abord damay jaale Alioune Badara Cissé médiateur de la République ancien ministre des Affaires étrangères ancien secrétaire général de présidence de jamonoy Abdoulaye Je di allé aussi Maysa avec la famille Tcham. Je suis ab Thiam bi yal na ko yàlla yërëm jéggal ko te ko ci àjjana yu gën a kawe suñu borom moom kenn du xëccoo ak moom lu mu def noonu la ñun ñi fi des yàlla may ñu gudd fan ak wér-gu-yaram yokkal ñu sutura surtout sutura ak wér-gu-yaram important la ci nit Alun Badara Cissé xaw ma ko personnellement bu baax mais sama gorola, la ndax sëram bu mu bokk ndey ak ne aussi ay xarit la ñoom ñaar jegante trop sama frère bu ma Bay ndey ak baay koy denc depuis plus la trente ans ñu ngi am nañu ay doom di ko jàlla Khady ab Abdoulaye Cissé Rose Cissé ak ñoom yu ak xale yi te mu ko jàlle ay soxnaam ay doomam mett na trop bu yàggul dara rek la bébé lay doomam boo xamante ni la juddoo dara aussi dans l'armée américaine désolé bu yàggul quoi ay bal foofu noonu états-unis te papam la woon vraiment abc nit ku baax tuba pire ku bëgg sëriñ tuba bëgg xasida yi te di ko jàng nit ku dëggu ne ku dëggu ne ku xam aduna ku bëgg nit ah, d'ailleurs dëggam boobu moo ko problème ya am ak Macky Sall ABC moom mo créé APR ñu bëri xamuñu ko mom Macky Sall Mbaye Ndiaye ancien maire Parcelles ak ak ak ak benn femme bu sante Badiane ñom ñoo créé APR ci ben centre avec yeneen quelques ne trois quatre personnes ABC moo remplir document yëpp moo ko déposé ministère de l' intérieur c' était un juriste quoi c' était un avocat hors bi mu jàngee Sénégal ba pare dafa dem Toulouse mu jàngi foofu après mu jógee Toulouse mu dem Angleterre mu jàngi foofu mu dellu si waat mu jàngi foofu Sorbonne après dem jàngi Écosse mu jógee Écosse après dem jàngi États-Unis États-Unis nag la am doctorat am en droit euh, bu waxee ñëpp a koy déglu un jour Maître Abdoulaye Wade dem États-Unis déglu waa ji mu wax te waa ji waxee ba pare mu laajte kii mooy kan ñu wax ko mu ne na ñëw pour mu wax ak moom da koo soxla Abdoulaye Wade moo ko jëlee États-Unis andi ko Sénégal jox ko ay responsabilité não me consegue ter zana o presidente comprando não punho mas ele liga a nion porque o homem arma o homem musga liga a mão o barra na saída de mão bem muita saída não não pode ganhar se não ganhar não pode jogar Dengan go gisnan go gisngan komander gisngan artikel, amu lain lu seulu tol ni lu seulu bon lu nyuwak cemong. Walau nyomel ni abe saya nak ñu ngi Sénégal wala nekk sénégalais nekk à l'étranger jàng nañ baax nañ yaru nañ am nañu xam-xam dëggu nañu bëgg nañu Sénégal mais malheureusement ñoom duñu ay politiciens te ñu bëri duñ leen déglu wala ñu bëri xamu leen xamuñu leen ABC du naafeq donc il était l'unique personne boo xamante ne ñame woon na wax dëgg Macky Sall ay la di ouvertement ñëpp di ko dégg loolu neexul Macky Macky dafa bëgg ñu mel ni ay ñoom Amadou Hott wala ay ñu mel ni ay Abdoulaye Daouda Diallo wala les autres nga xam ne ils font comme ça devant lui nan ko yow kay yàlla yow yaa yàlla yow yaa yàlla genre naa fekk yooyu lañ bëgg genre imbécile yooyu la Macky Sall bëgg ñoo xam ne amuñu benn valeur amuñu valeur quoi c'est-à-dire amuñu valeur benn imbécile boo xamante ne mu mel ne Macky Sall nga xam ne yaayam ci ngénte yi la doon toog di sàcc ndawal bi di ko yóbbul ay doomam ñu koy reere kooku tey moo ñuy jiite dañuy imposer ay idéologie am dañu toroxal Macky imbécile la il faut oser le dire Macky du ne il est mauvais même ay mbokkam ci côté papam et l'on dit nanan make amul baay make ala baaba make mooy bi mu demee Fuuta dégg ay propre boo xamante ne femme boo xam moom ak papay Macky ñoo bokk ndey ak baay moom moo nekk seedali en direct ci vidéo parce que buñ nee nit ki baax na dañ naan damal nga laaj ay mbokkam est que ay mbokkam ñoo ko wax Macky moom à part moom ak Maram faisal ak mbok Maram faisal ak ben frère am bu ñu Aliou Sall un voleur de 6000 milliards un voleur de 6000 milliards la wax à part ñooñu keneen intéressé légui na fekk yi aussi dañu xaar ba sa genn aduna ñuy da koy dafal ay ay ay ay éloge nan wa nit ku bax law nena patata patata dalu Mogan entel za makasal. Esa sa fe mala makasal. Sa lu fuze tre mal ko meti wan ka makasal ete komplekse devan alon badre sis. Ko fai komplekse kwa. Bun to ga nyom nyada ngai kisne. Ki da fa am komplekse wu. A be se wa da fa am komplekse. Mogan mra ne. Euh, Hari sis e. Kemo bayar jang nek dakar retakawal. appareil photo la ma jëndal boo jar cent cinquante mille à l'époque cent cinquante bu bëri la woon jox ma ko ma ci taaba taaba kooku tey man aw ma fayal dama koy remercier bu baax di ko sant di ko sant di ko ñaanal lu ñu déggante bariwul nag pour raison yu bëri yoo xamante ne yow xam nga ko man xam naa ko mais amul solo yow defoo ma dara man defu ma la dara mais dafa am lu nekk suñu diggante loo xamante ni moo tax ma xaw a reculer tuuti mais chaque instant sama xel bu demee ci yow dama lay ñaanal ñaanal sa njaboot ah. bu ñu jógee ci loolu balaa ñuy jógee sa ci loolu dama leen ba nga xamal ni que Alioune Badara Cissé dañoo wax ni corona moo ko rey Covid 19 ay feni neen la Alioune Badara Cissé corona reyu Alioune Badara Cissé Macky Sall moo ko rey. Macky Sall moo rey Alioune Badara Cissé je vais vous dire naka la reyee Alioune Badara Cissé xam nga bi mu déggee ne Alioune Badara Cissé dafa bëgg a nekk président de la République du Sénégal mu commencé koo xeex comme moom rek bi Abdoulaye Wade déggee ne dafa bëggoon nekk pré que dafa bëgg un jour poser candidature am pour remplacer Abdoulaye Wade Abdoulaye Wade da koo fexal jëlee ko changer loi yi. pour écourter mandat am à l' assemblée nationale changer euh, loi yi toroxal ko dàq ko ba benn instant Macky amuloon sol lu mu fayee loi sam man xam naa kan moo fay loi sam man xam naa kan moo fay loi sam Arouna Dia moo fay conversation yëpp seen essence message essence téléphonique yi essence appel yi lépp ñu balaa may continuer ci loolu damay dalal aussi policier yi nekk ci sama live bi ne ak gendarme yi nekk ci sama live bi ak ki procureur de la république envoyé pour muy enregistré lépp lu may wax maa leen di nuyu di leen sant enregistré leen fii ba gannaaw suba Ousmane Ba doomu aadama bi mën ci moom dara ki ko waroo a jor jodoogul man maa leen ko wax parce que lépp la may wax dafa am support cest à fu leer laa ko teg Macky Sall moo ray APS naka la Macky Sall rayee APS bi mu déggee ne APS dafa bëgg a nekk président ak aussi complexe bi mu am ci APS euh, te jamono boobu mu faloon ko ministre des affaires étrangères mu relevé ko c'est-à-dire dàq ko andi fa keneen ci la ko dàq andi Amadou Ba mais pour ñu dàq ko. il faut ñu am ay mbir yuñ ko accuser comme moom c'est un renommé boo xamante ni dafay défendre ay personnalités yu bëri ci monde bi ay borom alal ay ministre ay ancien président ay entreprise partout dans le monde mu am aussi ay clients Nigéria Abuja période boobu petit frère am mu ngi jàngee Nigéria léegi Pape Seydi dafa am ben way bu mu xam fo koku nako dama am sama ben xarit bo xamantene dafa am problème ak justice bi il faut un bon avocat da dégg sa grand frère avocat lo ko bu mën ligayam koku nako ko waaw je peux vous mettre en contact mu mettre len en contact léegi ki nga xamantene Nigéria bi nga xam dafa amone problème fofu non Nigéria borom alal la bu bari mais comme dafa may ambition politique gouvernement bi accuse ko ne dafay trafiquer drogue fekk ay fen la léegi ci biir loolu Macky fexe ba wax ñoom Seydou Gueye ak yenn journalistes yi ñoom Ousmane Ba bi nekk présidence ak les autres ñu benn ay articles yu salte jox ko Dame Dieng leeral mu publier ko ne woy Alioune Badara Sall dafa impliqué ci affaire drogue quoi bu nek de dezaria patate patata. anu bu se emple wul ci ben lulus. Parsaga. Kok mau lo comprendre Mais c'était une façon pour takal ko ba gaay wax bañu wacce ko nonu lañ ko wacce Pape Sidi loolu préféré Alioune Badara Cissé laa leen wax de loolu moko ko ba da koo dafa feebar ba def crise ba dem hôpital foofu la décédé donc Macky Sall rey nañ Alioune Badara Cissé rey petit frère Alioune Badara man maa ko wax ci biir loolu Alioune Badara feebar bi mu feebaree bu ngeen xoolee def leen rek calcul bi kañ la Alioune Badara Cissé feebar Alioune Badara Cissé mu ngi feebar fin juin ok fin juin lan la tombal fin juin mu ngi tombal ak fin mandat en tant que médiateur de la république et les et écondir ko mais non donc, démettre kan la Macky Sall fal pour remplacer Alain Mbodj Sèye Demba Kandé. Demba Kanja la doomu raam ki nga xamante ne moom moo sàcc élection yi ñu génn élection présidentielle magistrat Demba Kanja la doomu raam bi nga xamante ne moom moo sàcc élection élection présidentielle 2019 pour déclarer ne Macky Sall moo gagné bi muy def déclaration bi yooyu ñëpp gis ngeen nu muy loxe tellement que xam na ni mu ngi fen te yàlla nee na fenkat du dugg àjjanam benn ci àjjanam fenkat du fa dugg loolu dafa metti alun Badara Alun Alioune Badara mu defal Macky Sall Alioune Badara Cissé li mu liggéeyal Sénégal Alioune Badara ak tramp ak nit bu mu doon Macky Sall waru ko woon démettre wala au moins mu jelo ko foofu yóbbu ko ci benen poste exactement moment la Alioune Badara Cissé parce que xol bi mo metti quoi parce que il se demande sûrement pourquoi maké de ko def li il ne mérite pas ça c'était la deuxième fois maké de ko de ko limogé té birum fi ñu ko def fi ko jox bureau Roosevelt fa la ci kaw fekk cadastre am bureau noonu Alioune Badara Cissé bu ngi troisième étage xaw ma quatrième amul ascenseur amul ascenseur ay escalier lay yéeg te ñu ñëpp xam nañ ne Alioune Badara Cissé géant la ok ay escalier lay yéeg pour dem foofu même léeg-léeg am na ay médiation yu muy def mu am ay nit yoo xam si ay chaise roulante la ñu nekk wala mag du ñu mën a yéeg ba bureau ci kaw moo mooy wàcc si suuf ci. saldagay bi cest à ci hall bi noonu lay tenir ay mètres am wala ci ay couloir mais vous vous rendez compte Aliou Mbodj Cissé amul voiture de fonction Macky da koo toroxal donc alors Macky moo rey Aliou Badara Cissé moom moo rey Pape Cissé man maa ko wax man Ousmane Ba maa ko wax te waxaguma dara ci lool parce que li ma wax dama ko xam daf maa leer nañu ko médi parce que dama bokk ci boobu famille par alliance parce que am na loo xam ne sax rus naa ko wax parce que sama belle ak samay nièce ak samay neveu ak ay doomu Alioune Badara Cissé moo tax waxuma ko parce que aussi du lëpp la ñuy wax mais Alioune Badara Cissé Macky Sall moo ko rey c'est Macky Sall qui a tué Alioune Badara Cissé lui qui l'a assassiné man Ousmane Ba maa ko wax